29 juillet 31. du 31 juillet du moins 2023. 2023. 2022. C'est un constat général qui a fait la des jeunes, surtout de Benobo Kiyaka, qui se sont sentis lésés, abandonnés par les leaders et qui ont pris la décision de prendre leur destin en main. on a vu qu'il y a on a vu un manque de considération envers les jeunes, des promesses non tenues, le chômage des jeunes, et plus particulièrement, il y a beaucoup de problèmes qui se passent ici aux, aux, parcelles d'Assénie. C'est pour cela que nous avons convoqué cette rencontre. Le mouvement VAR a pour objectif de veiller d'orienter les jeunes dans la consolidation des acquis démocratiques et, tout, et surtout l'instauration d'un état de droit. Le troisième point, on doit parler maintenant d'actualité politique ici, socio-économique au Parti des Assénis. Nous ne pourrons pas en passer parce que vous savez très bien que le Premier ministre habite ici au Parti des Assénis. le Premier ministre Amadou Ba et ensuite celui qui a été nommé le candidat de Benno Bokk Yakaar. Cette localité rencontre beaucoup de problèmes, à savoir les infrastructures, l'éclairage public, le chômage des jeunes. Ici aussi, l'assainissement et l'eau ont toujours été les doléances des populations des Parcelles Assainies. En cela, Nous avons constaté que le président de la République, c'est lui-même qui a défendu le programme du PSE. Mais aujourd'hui, un franc de ce projet de PSE n'est pas investi ici au Parcelles Assainies. Ça fait mal. C'est pour cela que nous l'interpellons qu'il sache que s'il si a un problème avec la population parcelloise ou non, qu'est-ce qu'il prend jusqu'à ce qu'il néglige la doléance des parcellois. Aussi, on avait fait beaucoup de concertations par rapport à la situation des parcelles. Car depuis 2010 jusqu'à nos, jusqu nos jours, il y a des défaillances au niveau des écoles. Aucune école des parcelles assainies n'a été réhabilitée. Il y a des écoles où il n'y a pas de douche. Il y a des bonnes volontés qui sont levées et mettent leur argent pour réfectionner ces douches. À l'exemple, à l'école 26, il y a un, un, un, un investisseur qui s'appelle ADD qui a pris en charge la réfection des douches, des toilettes. C'est vraiment assez déplorable. Aussi, nous avons décidé, par rapport à tout ce qu'on a mis comme effort pour, le, pour la coalition Benobo Yakar, on a vu que les, tous les jeunes ont été lésés. Les jeunes n'ont plus espoir à, cette, à ce gouvernement, surtout la coalition Benovo Kiakar. Après maintes concertations, le mouvement VAR a pris la décision de soutenir le candidat Malik Gakou. choisi le candidat Malick Gakou parce que c'est un candidat consensuel qui peut réunir toute la classe politique du Sénégal. Aussi, nous sommes convaincus qu'il est le candidat de l'espoir. Il incarne la, co la cohésion nationale et surtout celui de la lutte contre le système qui est une demande sociale. nous lançons un appel à l'endroit de la jeunesse sénégalaise qu'ils sachent que la clé de la réussite, de la liberté et de la paix est entre leurs mains. Nous profitons de cette rencontre aussi pour appeler solennellement le président de la République de libérer tous les détenus politiques. Nous vous remercions de votre présence à cette conférence de presse. asalaamaaleykum waa Parcelles Assainies asalaamaaleykum suñu mbokk journalistes yi di leen sant di leen gërëm ci seen taxawaay ci wuy bi ngeen ñu wuy si fii ci population parcelloise rawatina ci mouvement VAR di nuyu suñu xarit yi suñu àndandoo yi suñu am di jàmm yi. nekk ci mouvement VAR vision pour l'avenir suñu ëllëg suñu loxo leen di sant leen gërëm bu baax li tax nag ñu woote ndaje bi du lenn lu dul ay mbir yi nga xamante ni dafa am fii ci commune Parcelles Assainies benn côté ci ndaw ñi beneen côté ci mbirum situation bi nga xamante ni la commune Parcelles Assainies nekk beneen point bi mu nekk lu am solo muy tànneef bi nga xamante ne nii moom la nga xamante ni moom la ndayu ñun di mouvement VAR nekkoon ci coalition Benno Bokk Yaakaar mouvance présidentielle décision boobu ñu jël ñu war leen ko leeral ko leeral waa Sénégal fa ñu jëm bi ci njëkk nag muy yan anam lañu jaar ak fan lañ jaar ba mouvement bii ñuy wax mouvement VAR vision pour l'avenir sosu kuréel bi ñu ngi ko sos ci ëllëgu élection législative 31 31 juillet 2022 bii passé te li tax ñu sos ko dañoo nekkoon ci coalition bennoo Bokk Yaakaar depuis 2012 ba 2023 ñun ndaw yi nekk fii ci Parcelles Assainies ak ci département de Dakar nekk ci mouvance présidentielle benn Bokk Yaakaar ñu nekk ci Benno Bokk Yaakaar ànd ak nguur gi 2012 ba jamono jii joon yàlla may wax ak yéen. ñu jël décision bis ni ki tey bi ñu xoolee xam ni jot na ndaw yi jël seen avenir téye ko seen loxo ndaxte fa ñu jëm dafa am solo te ndaw moom mooy. bankaasu réew mu war a samp mooy bankaasu réew mu war a taxaw objectif yi nag li tax ñu gën ko sos dañoo xam ne ñii nga xamante ne tey ñoom lañ àndaloon muy coalition Benno Bokk Yaakaar ànd ak Macky Sall xam na ni moom ci jëmi boppam ak gouvernement fa mu jëmale senegal jëmukaay ba nga xamante ne ni moom la réew mi soxla du jëmukaay ba nga xamante ne nii moom la ndaw Sénégal soxla ndaxte ndaw dafa soxla lu bari soxla ku ko taxaw soxla ku ko yëg soxla ku ko yiir ndaw soxlawul ku ko wor ndaw soxlawul ku ko ku jël bakkanam ndool sox ndaw soxlawul ku ko fitnaal bi ñu waxtaanee suñ biir nag ci la ñu xam ne nag yoon bii ñu nekk yàgg nañ ci maanaam waaye du yoon bu baax du yoon bu gën ci ñun du yoon bu gën ci askanu Sénégal du yoon bu jëm ci ndawu Sénégal moo tax ñu sos mouvement bii ñu wax VAR VAR nag bu ñu koy xayma ci olof wala bu ñu koy dàkkaan ci olof mën nañu wax maanaam comme ni ñu koy xamee rek ci VAR ci jongante yi mooy leeral maanaam mën nañu wax ni mooy tame tame bi nga xamante ni tey day lay day segg moo tax ñu sosu ko muy VAR di wax nag benn. ci nga xamante gox bi nga xamante ne ñuy dund mi Parcelles Assainies parcelle dañ ko créé depuis 1974 le projet des Parcelles Assainies ñu créé ko depuis 1974 parcelle boo xoolee tey boo fu duggee ci 19 communes yi am département Dakar yëpp boo xoolee ci wàllu ci wàllu leeraay parcelle dafa dellu ginnaaw ndaxte parcelle fi mu toll nii di ko dale du ma wax sax unité 7 ba unité 26 mais damay jël unité 1. daanaka bokkul ci commune parcelle mais boo jëlee tey unité 7 bi tax ñuy wax parcelle te mu bokk ci cartographie électorale parcelle unité 7 ba unité am na heure yoo xamante ni guddi nit sañu ta dox ndax lëndëm ak insécurité te loolu ñu koy ñaalu loolu am fi ay njiit yi nga xamante ni tey yàlla dégg na ay bànqaas ay ndombal tànk ku ci mel ni tey Amadou Ba ñu yàgg ànd ak moom mu yàgg wax ñuy wax mu yàgg ñu dig te du ko def daf ñu war ñun war nañ ci kàddu war nañ ci ci jëfin mook moom ak mook ñi ko wër te man mii di wax ak ñoom mu may dégg moom xam ne li may wax ndaxte yaakaar naa doomu aadama boo koy jàpp da nga koy jàpp ci kàddu doomu aadama boo koy bàyyi da koy bàyyi ci kàddu te diine suñu diine sax daf ñu jàngal ni bàkkaar bi gën a rëy boo ko tegee ci balance su charia mooy maanaam kàcc te ñun duñu ànd ak ay njiit yu ñuy kàcc duñu ànd ak ay njiit yu ñu jëppi dañuy ànd ak yow nga nawloo ñu ñu nawloo la ci dëgg Parcelles Assainies li fi nekk ci salte ci mbalit kenn xamul nu mu toll ak feebar yi mu jur fii hôpital yi ñu am fii ku ci mel ni hôpital Norat bii hôpital Norat boo fa demee maanaam sa yaram day daw amul benn bànqaas wala benn jumtukaay boo xamante ne bu mucc ayib boo xamante ni suy responsable politique yi nekk fii rawatina ki fi jiitu teg fi tàgg ñu teg ko mu Amadou Ba am na benn pont bu mu fa def wala am na benn seringue bu mu fa def wala benn lal bu mu jënd ngir ñi wopp ñëw mën fa tëdd te hôpital Noraat lañu wax nga jóge fa dem hôpital Mame ab Aziz Dabakh nga dem fa bu yàlla dogalee nga am malaat da ngay jaaxle tiit. ba xool noo koy rawalee ngir mu mucc ndax hôpital yu yu raglu yu tiitu ñu xool yi ndaw yi wàllu sport li ñu manqué dañoo bari ndox mi fii ci parcelle kenn mënu ko naan danga naan sax yow nekkoo parcelle yaa ngi ci yaa ngi ci dëkk boo xam ne sax du maanaam du senegal ndox mi boo ubbee tey ni mu mel di nga bàyyi lu jege fukki simili ngir nga mën a am ndox bu baax ci commune bu mel ni commune Parcelles Assainies te ki nga xam ne moo fi nekk muy amadu Ba moom moom ci boppam moo accompagner honorer le plan Sénégal émergent te Parcelles Assainies bii commune bi nga xamante ni moom lay woote nii fi la juddoo wala fi la dëkk wala fi la yaroo wala fi lay voté am na benn loo xamante ni pàcc boo xamante ni jëriñoo na ko ci plan Sénégal émergent moo tax Olof Njaay ni euh, da ngay bu nu koy wax sax way sa ba yi waaw bay say woyu tànk waaye ñoom defuñu loolu ñu booleel loolu lépp nag xam ne ñii bu ñu leen toppee te bu ñu leen fi jëlawul jàkkaarloo ak ñoom ci musiba lañ jëm beneen point bi nga xam te ne moo gën a am solo bu ñu xoolee waxtaan ñun suñu biir ba pare ñu xam ne ñu ku ñu gënal ak candidat bi nga xam te moom moo gën ngir ndaw yi candidat bi am yërmande candidat bi nga xamante ne nii day wax du ko def candidat bi nga xamante ne nii moom moo defar boppam li li anglais di wax self-made man nekk un banlieusard ñafe fanaan ci mbedd di ko jaayante ba yàlla may ko teraanga bi nga xamante ni tey macha allah moom la am ak daye bi mu am tey muy ci ngor ci diina ci lépp amul lenn loo xamante ne ni état moo ko ko jox ndaxte moom nekkul koo xamante ni maanaam dañ ko parachuté dañ ko jël rek tëmbal sànni ndaxte moom lu mu gàtt gàtt nekk na conseil municipal wala mu am benn poste boo xamante ne ni maanaam. mbañ gàtte ñoo ko jox par rapport wuuteeg Amadou Ba nga xamante ne moo nekk parce Parcelles Assainies moom bi mu dalee def carrière politique ba joon jàll ma lay wax nii musul am post boo xamante ne da am ci bu jugee ci mbañ gàcce musul am post électif ay poste nominatif décret la am donc kooku mën naa taxaw wax ni moom il n'est pas légitime même d'être la le candidat de la coalition Benno Bokk Yaakaar mais peut-être c'est le moom loolu lay xam suñu candidat bi ñu jël tànn ko mu doyloo ñu nawloo ñu yëg ñu wet ñu wegu ndaw Sénégal yëpp di doxal intérêt général ñu koy wax le président Malick Gakou di ko félicité di ko xamal ni Parcelles Assainies yi ubbil nañ ko buntam ndaw Parcelles Assainies yi ubbil nañ ko buntam mouvement VAR vision pour l'avenir ubbil nañ buntu président mali Gakou yaatal ko tapis rouge ko fas yéene ko dugal biir parcelle jox ko électorat bi nga xamante ne nii moo nekk Parcelles asseni te loolu incha allah li ci kanam raw li bët ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di gërëm suñu camarade suñu frère monsieur Pape Diakhaté nekk le coordinateur fii communal du grand parti nekk aussi ci département de Dakar ñu suñu camarade ñu ànd ak moom cheminé mu yar ñu ci politique. depuis bi nekkee parti socialiste ba tey jii nii mu nekk un homme social nekk un homme d'état nekk un homme loyal tey bu ñu demee tey ba ñemee le président Malick Gakou ba dugg ci coalition vingt 2024 yaakaar naa ni am na lu mu ci ji ñu ngi leen di sant nag di leen gërëm di sant ñi fi teew ñëpp di gërëm suñu sympathisants yi di gërëm suñu jigéen ñi fàttewuñ kenn délégation bi ñu fi ñëw bari nañ mayage bi yaatu na responsable communal yi ñëw nañ Pikine Sébikotane Kër masaar HLM kenn desul ñi mën a ñëw ñëw nañ ñu ngi leen sant di gërëm mënuñu lim nag Bakel Grand Médine waaw su ma limee damay jum vraiment kontaan nañ ko jaajëf